Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des like, merci de des abonner, merci également gars hein, de baisser les commentaires, vous faté, boss du de notification pour nek ci kaw également ngi jot information yi toujours en temps et en heure, vérifié en exclusivité. Mbokk sénégalais aussi fépp le meut nek adna wëngal Cup, wa diaspora bi ñi ngi leen di jaajeufal aussi ñi nek ci ruxu ruxari gox goxari ñi nek ci l'hôpital hôpital yi ci kër yi febar, yalla suñu borom fëgg seen bop vers wër jam ñi nek ci kasso également suñu borom gën leen fa delwa dans seen jabor ñi de droit duna. Suñu borom xalé na jëne fi gars ci gaay té yéxé ñëw on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité on continue actualité Benjamin Pavard wax na Sadio Kaiser magnifique ne qui également dit Thomas Tuchel wax ci Sadio Kaiser magnifiquement ne bu leen fàtte gars aussi vous ci lien boobu dem abonné beneen chaîne bi Baba Show Bobo, chaîne boobu gars Les lépp lu histoire la ñuy wax loolu histoire la ñuy wax foofu la ñuy wax li nga xam moo jëm ci portrait et tout mais fi sport bi lañ d'abord un seul gars moi. Mais le défenseur Nottingham Forest nee Erling Bro Haaland bu dajeeg défenseur de l'écart. <laughs> nee na bu duel amee alarme looloo tax muy nangu ball gars yi nee na di kaata inventé wu ma ko de waa benn waay bu nekk défenseur Nottingham Forest moo ko wax kii nag di Pedro Pedro li 2010 ñu daje nag ñoom ak waa Real Cristiano Ronaldo ko toi tu ne <laughs> nañ ba léegi réponse amagul donc nag damay xaw a jaxase tey waa Real ak Barça gars yi tontu leen ci loolu loolu la Pedro wax Ronaldo kii nag di Osimhen gars yi nag leen ak lu tax chaque fois mu ne dama fay dellu pour fàttali ñu fa nekk ne gëm sa aucun rêve n'est impossible à réaliser loolu daal la la leen ce di wax saa su nekk bu fa donc Nagelsmann Nagelsmann donc il est en contact direct ak ñax mooy Chelsea dem na fa si ñenn ñi si yi dem visiter installation et tout il veut se donner le temps xol tek projet bi defat équipe am bu fa yob Gravenberch également à Bayern Munich waxoon na len ko nenañ jaayuñu ko il ne vend pas Gravenberch xalaatuñ ko jaay même bu fekkee ne am nay club yo xamné ñi ngi intéressé wu ci mom bëgguñu ko jaay mais également ki nga xamné bokku na ci cible Bayern Munich muy ki di Harry Kane Harry Kane nak actuellement aussi wa Paris Saint-Germain dañ ko def priorité numéro 1 au niveau de l'attaque parisienne Paris Saint-Germain daal ñoom fi ne nii garder Messi wut ben neuf pour xamné mom moy nekk neuf nek ci attaque bi loolu lañ bëgg ek lañ ciblé et aussi kiri José Mourinho de Special One gars yi moom it bokk na ci nga la Paris Saint-Germain ak Luis Campos euh, euh, ciblé pour mu nekk entraîneur Inshallah la saison prochaine en tout cas il est bien intéressé lui également kiri José Mourinho li également gars di derby Sénégal diggante ñii di AS Pikine FC wax naa ko c'est confirmé le 29 avril lay doon Inshallah ca stade. Abdoulaye Wade Gaye dina neex donc ñu dem ni gars yi dina neex dina yëngu dem seetaani ko benn parenthèse bu ndaw parce que aussi il a son son son son son plutôt il a la raison de le faire mom nak doomu Gossas la Gossas la juddoo ba mu amee ñaari at la dem France muy Cheikh Niass Cheikh Niass nak dégg ngeen ko wax na né mom France la tànn fofu la bëgg jouer donc bonne chance à toi Cheikh Niass loolu jarul ñukoy guddal jappalé ne daal moom milieu terrain la Lille lañ ko former mu jóge fa fi mu ne nii mi ngi ci Young Boys de Berne boo moytu sax ñu may jël championnat bi presque moom daal foot mercato la amal info la amal interview ne leen moom daal Sénégal ñaari at la fi ba mu amee ñaari at la fi jógee France daal bëgg mooy bëgg-bëggam donc courage jaruñu si yàgg di ci wax mais fi ñu yàgg di wax mooy Sadio Kaiser magnifique Bambali champion d'Afrique Mané gaynde gi dellu si na loolu la ñuy ñaan xool leen ko ce regard de tueur ce sourire bi Sadio Mané wane ànd ak également waa écurie écurie bi nag mooy ñoom Bouna Sarr ñoom Choupo-Moting ak ki nga xam ne mooy Benjamin Pavard mais Sadio Mané déter plus que jamais Guy a prouvé que les c'est le roi des rois c'est le champion d'Afrique c'est le double ballon d'or africain c'est le deuxième au ballon d'or européen Sadio Mané bi nga il s'est entraîné et qui est mon coéquipier du Benjamin Pavard qui ngeen une relation waxoon naa la ko gars a par la grâce de Dieu groupe yi dañoo am ku nekk am groupe français yi un groupe francophone. francophonie Benjamin Pavard fa bok Mon moom nag Sadio Mané li am am na ba pare buñ ci kenn dellu si li ñu a wax mooy que ne Sadio Mané c'est un excellent joueur c'est l'un des meilleurs joueurs au monde entraîneur bi nag moom mooy def choix moom mooy wax kan mooy jouer wala ku lu jouer mais nous on a besoin de Sadio Kaiser magnifique Mané dañ ko soxla dañoo bëgg mu wan ñu su niveau carrément bi mu am parce que il a son impact et aussi kontaan nañ ci moom ci équipe bi ki nga xam ne aussi mooy Thomas Tuchel nee na gars yi bu leen ma sonal affaire Sadio Kaiser magnifique Mané le débat est clos Sadio Mané intégré na li nga xam mooy équipe bi day dem ci nga xam mooy ci match bi contre Manchester City parce que man dama damay compter ci moom dama ko gëm loolu Thomas Tuchel wax également en conférence de presse donc Thomas Tuchel nee na le débat Sadio Mané le Sané c'est clos nañ ko bàyyi di ko wax bu ci kenn waxati moom li ko intéresse mooy joueur mi concentré wu il a besoin de tous ses jobs et Sadio Mane xam nañ moom fi mu ko teg loolu la ci leeral maintenant nag gars yi comme on dit le débat est clos relation nag ki nga xam mooy Sadio Mané Leroy Sané am na yeneen affaire yoo xam mi ngi ciy am loolu nañ la ko bu si jotee parce que am na yu ciy génn mais quand même actuellement jàpp leen loolu la gars yi c'était les informations que je voulais vous donner wéy leen di like surtout wéy leen di abonné on avance ensemble gars yi jaa ngeen jëf